ñoom ay soose lañ mu dugg ci biir soose yi ma nga war suusal kaani warul maa joor warul warul maa law suusal kaani la war bi mu ñëwee taxaw boobu maa law daa tawat daa tawat wax dëgg ngir baa doon mitti de cere jëm lekkoon cere jëm lekkoon maalaw ci boppam tax maalaw ci boppam garmu wax na dëgg ba ba sa xel dem na ci la <laughs> waxoon ñettu fanu bàmmee <laughs> waay waay alaaj man si ma dog yàggale yàlla ci la góor gi ñëw taxaw génne ab max doon na ko tuy la jot na ko yaa xam sabab sarax takkal ab xare dinaa xare ak yow mu ñëw wax ko tafsir ma ba tafsir ma ba ne ko jox naa la ci ndigal ñu xare ngoon ba ba jottu so kenn gañuwut loolu la way wuréy wa ñu ween ko ñaali bañ ñaali dëgg la waaye ñaali bañ dëgg la soo yi génne ay yemb mhm. sànni leen ko yemb yi commencé dugg seen paxe bakkan yi fas yeegi yooyu mhm. tey nag bi tey li tax ma wax loolu toog mhm. fee dane tey tollob nga fi dajale dëgg ne sekaar ñu ne déetawaay ñu ne garmi alaaji Mansour Mbaye toog lépp toog dani mu too toog alaaji Mbaye peex toog ne naan ndan ak tama dañu dem ci ngéwél ga tabalaay si mam tëg Öyle yàqeetam. bul jooy. bul a bul jooy bul jooy. su ko mënoon nga ci taas. waaw bul jooy bul jooy xam naa ne sa xol moo tooy mën a naar sa xol moo tooy sa xol moo tooy loolu dig si noonu la si kaa bilaay bi tey joxal kenn mu yeggali xool ba tooy na jërëjëf jërëjëf ayca ñu jox Badou mu nuyoo laataa ñuy jàllaat ci ki nga xam ne moo di Garmi Badou man dama xamul ndax Badou laa war a wax wala damaa war a wax monsieur Tunkara wala damaa wax ma Yacine ban laa ci war a wax ndeysaan jërëjëf euh, euh, Mamadou Biteye maa ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu tey di wax Sénégal gépp wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. la jaajëfal bu baax ci invitation bi. waaye te nga baal ma nuyu Sénégal daal nuyu naa leen beral leen nuyoo lool. Mhm. di leen seedeloo it nag sama mbégte ci ñii ma dajal fii. ñi ma dajal fii day gannaaw yow moom ñoo bokk lépp mm-hmm. yow ambassadeur nga ci culture jërëjëf eh, dama lay tëb sax bu ma ko sañee mm-hmm, mm-hmm. am mbégte lool ci fekk fi sama doom ji nga xamante ni Moustapha Thiam mi eh, am naa mbégte lool ci ni ma la fi fekkee ak ni ma la gisee li ma rek ba tey say rongoñ bu ko fi dooyee waaw ma koy gérer ndax koy àndal ca ca ca ca baa ngeen àndandoo ci siin ak mimara te dara ñaawul ñu koy sant san borom maa ngi ñaan yàlla lafal la cat amiin yàlla guddal sa fan yokk la ba nga gën koo yëg yàlla la yàlla yokk ba nga foog ni dafa juub amiin waay amiin yàlla allahumma nag cuqi Sénégal da leen a lu ne mhm. ndax toog fii di leen waaye mënul ñàkk ndax xam nga xale yi boo comme meewa leen fi indi ñu ah. leen jox ñuy naan di meew ah kon de na ma meew mi romb <laughs> na ma meew mi romb de na ma mi romb lu ñu léegi yow léegi yow léegi yow meew mi te bul meew déet meew mi kañ dama leen koy jéggal xaaral ma tari Issa Dia <laughs> te ngaa mi Issa Dia man moom Issa Dia la te ma mi lu ñuul daf ma koy gënal aca bisimilah di la bëggee yow it di justement waa télé bi yëpp yëpp yëpp yëpp may jégalu nag ci retard bi. moo tax fayuma woon këf ki. di jégalu bu baax ci retard bi ndax dama yegg si en catastrophe. ci plateau bi loolu neex defal. loolu neex amul loi. <laughs> <laughs> lëmbalu naar. waaw lool. man du may du may bëgg yegg ci lëmbalu naar damay wax rek seka jëwriñ la <laughs> ndax daje dafa warul waaye koo yegg ba fa mu ne di nga xam kii ku mu di nga xam noo toogee boo ko fekkee dëgg la gar mi la dararar mm-hmm. warul di tàllal loxoom fu ne. déedéet kenn. frère yàlla mooy fii dajale. dëgg la ngeen gañee it nag sama waa kër loolu yàlla dogal. sama waa kër maa ngi leen di nuyu bu baax sama njabootu bopp samay mbokki bopp. ndax yoon bi je suis venu en catastrophe. ci réew mi te xam naa ci dara. walaay ñëw bu doy waar boo xam ni. tubaarkàlla alhamdulilah daal sant naa sama borom bi ma indee ci jàmm mhm. yoon bi gàtt lool ñu war a dellu ni mu gën a gaawee mhm. ba tax na yéen ma jëkk a gis sama njabootu bopp sama papa papa ama ñaaña tegaguma sama tànk ndar sama tànk ngi doog a dugg si ndakaaru parce que dama def rek aéroport jas jas mbuur maag ñi ma àndal ma jëlee la mbuur indi la nga jëlee ma mbuur indi ma te yow sañu maa wax ndax alalu njulli selbe ca la dëgg la ba addinay baax bu selbe waxee njulli pat lay def dëgg la dëgg la kon fi nga ñu féete ñun xam nañu ko yow xam nga ko et ñu nu xam nañu ko kon ñu koy sante sans borom bu baax ma ñëw nag ànd ak sama rakki bopp gannaaw bi ma tàggoo sama baay sama kilifa Adama Tunkara sama mag mhm. mu digal ma ne demal mhm. du leen sax gis parce jot gi mhm. séjour bi mayu ma ma mën a yegg siyaare ji sama mag jooju sama baay Adama Tunkara mhm. mhm. woo naa samay mbokki bopp woo samay mag ñu si ñaanal ma yepp ma na ma demal Sénégal nam na la na la billaahi sama waa kër gisuguñ ma rawal waaye sama taaw laa àndal Abdourahmane a ngi ci biir taa mhm. ànd ak papam Omar Ñaan Tunkara sama rakki bopp commissaire bu commissaire bu riis bi ñuy jooy noppeegunu moom lañ ko dippee ndeysaan kon daal alhamdulilah Sénégal sant yàlla ku ma gis ak ku ma dégg ak ku ma yëg ak ku ma gisul mhm. nuyu naa leen sargal leen ziar leen bu ma sañoon fu ne ma taxaw fa fu ma war a taxaw fu ne ma taxaw fa mhm. lii la yàlla def Euh, tubarkalla la ñi nuyoo baa ngi nii daal. lenn moom lenn moom xamal naa la ko. Euh, euh, Sénégal kontaan nañu. ndeysaan alhamdulilah ndax demande la woon. ñëpp namm la. ndeysaan dëgg gis nag. ndeysaan kon boo fi ñëwee ci ñëw bu gàtt war a dellu mm. ñu lay ñaanal nga delloog jàmm la tax a ñëw fii itam mu doon luy antu nga delluwaat ci jàmm ñëwaat fekkat ñu ci jàmm amiin kon nag teg la fi Sénégal gépp kontaan ndax moon nañ la lii rek laa ci jublu woon alhamdulilah xam naa ne xatoon na waaye dama lay delloo njukkal li parce que li nga ma may dafa jafe ndeysaan ndax xatoon na xam naa ci dara ndeysaan mais nga ne noo munoo ma woo ma bañ ñëw force ma ñëw te lii rek da ko firndeel àggagoo sa njaboot te ñëw nga fii barke yonent bi lii rek daf ko firndeel doguma la sax ndax yow da ngaa am ay avocat fa ma ne <laughs> ndax soxna si sama soxna si bopp Adja Jeewa Ndiaye ndeysaan ñoom Anta Diakhak waa Ndar ya ma nekkal ca Paris waaw ñëpp ne nañ ma jógal dem ndeysaan kenn waxul nag sama soxna si nga xam ni madame Samb mhm. Adja Dior dor jën jën yoogu kooku moom xaw ma nu ma koy def xanaa di ko ñaanal sama borom rek fu may safaawiteeree nag mhm. li liggéeyee ko moom ki ma yombalal ma yegg si mhm. ki ma yombalal ma yegg si dëkkoo ma dalal ma ca mbuur waaw mhm. saafanteeg sama njaboot na ma indi leen ñoom ñëpp fii ndeysaan ay caabi yu bëri laa yor tubarkalla macha allah <laughs> fu mu neex ma dalal la tey ca mbuur ca sali maa la wax loolu de loolu ñoom ñëpp am ngi leen di ñaanal bu baax doomi awa géey ju baax jooju lay ko yàlla yokk sant yàlla barke yonent bi tey mu neex de tey bi neex te di nuyoo rek lañ toll aywa gar mi lan ngay ci Secka ndax foofu lañ tolloon muy suñ gan gi ñu jërëjëf El Hadj Mouhamadou Biteye tey sama yaram dafa daw. dëgg-dëgg góor yi nga dajale tey. il va rester dans dëgg-dëgg Secka maa ngi ko xam dëgg-dëgg deux mil deux mille quatre. laa ko xam. dëgg-dëgg muy xale boo xamante ni bii bi ma ko gisee. dëgg kaani gi. muy tëgg benn morceau foofu benn ayse bu ñuy wax kaani gi. mu fay tëgg dëgg dëgg. gaawle concert kaani gi ASC la xam na ko. <laughs> kaani gi day sàmm ASC boobu comme dajal. <laughs> war ko yomb naa wax rek néew dama la koy sotti. war ko yomb naa yomb xamuñu fa mu dajal. waaw ni waxee kaani gi moo def ree te ASC bi am na. bi tey du ma wax lu ma maîtriser wul du ma wax lu ma xamul. dëgg dëgg moo woyoon. Uh-huh. aw may dina ma yëngal daal. kuy awa may. dëgg la damaa bëgg nga des ci awa may. dëgg dëgg. Awa Ndiaye. damaa juum Awa Ndiaye. Awa Ndiaye dina ma yëngal daal. waaw xale bu mën a way boobu lool. Uh-huh. alaaji Ivian bu baax mi lii. Mm-hmm. dëgg-dëgg mu dellu ni wan ma sa pointure. Mm-hmm. mu dellu ni aj lu mu jëm kaw na ko xeeb. Mm-hmm. foofu nag la d' accord <laughs> foofu nag fekk man dëgg-dëgg laa xamul. kon foofu nga d' accord nag moom lan lu mu jëm kaw waaw mu ni kuy aawo ajal waaw. mu ne ko ñett aw ñu nekk Sénégal nekk say morom. waaw moromu yaay. waaw bi dëgg-dëgg Secka ki doon bind du yow xam na dëgg-dëgg waaye daal lu mu mos a way rek it la waaye nag génnee xale yu bari ci ngor alaaj bi daal dëgg-dëgg. maa ngi dee wuyu ma fi. Mhm. kuy aawa ajal loolu dara nee ci. ak lu mu kawe kawe na ko xeeb. yow xam nga ne daraan ci yow mii sax xam nga ni dëgg-dëgg daraan ci. wala dëgg-dëgg. muy góor goo xam ne daal dëgg-dëgg li li alaaji Modou alaaji Modou Tunkara wax rek mu mm-hmm. ban ban lépp mm-hmm. ngoran ci moom mm-hmm. joman ci moom ndax fi mu nekkoon bët fëll ñi fa nekkoon ñëpp dañoo cité yombul de dëgg la waaye ku la ko loo moo la ko xaj daal dëgg-dëgg fex na daal ba percé moo tax xale yi dañu ko waroon di jox àllarba dëgg la nee naa xale yi daal dëgg xale yi taasu baat boobu ci moom laa ko jëlee waaye bu doon bi égaat la gars yi leen yaa jël seen bu léegi seen turgalaise yaa tax dëgg-dëgg kenn nekkatul à l'aise jaaraat ci li nga wax noonu ma ni ma ma ni euh, taas bu doon bi égaat la waaw moo leen kucc <laughs> moo jël seen buró leeg seen xale yi duñu ko xam daan bii ñoo koy xam daanee koy xam ku fawul bu njëkk xamoo ku fawul mënoo koo xam dëgg la de garmi fan nga déggee li yow wala abdum abdum abdum nga waali rek wala kucc naa li nga yëkkati foofu xamuloo addu mbulde addum addu mbulde addu bulde addu bulde addu addu addu mbolde bulde bulde ko garmi daaneel la dëgg dëgg daal muy muy inspiré génération yu bëree bari mhm. dëgg dëgg daal di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal ngor lu mu musa way rek idi la lu mu musa way daal dëgg dëgg def na def na li nga xamante ni mooy bom mhm. xale yi topp ko bëgg ko moo koo xam ne musul def dara ci loo xamante ni bi lu ñuy wax accam la mhm. dëgg dëgg ci waaye waaye daal fex na ba conserver boppam fexe daal dëgg dëgg ba li muy liggéey dëgg-dëgg teg na ko fulla teg ko ci ngor dëgg-dëgg ba tey daal dëgg-dëgg muy continuer di exister mm-hmm. loolu yombul de am na ñu ko jiitoon doon taasu tey existé wuñu mm-hmm. loolu lu koy may ngor ci lay bokk mm-hmm. jom ñàkk ba a ñàkk fayda dëgg-dëgg loolu nag yooyu yëpp la maîtriser waaye nag doom pikin la dëgg-dëgg boo juddoo pikin yaroo caara yeeg yooyu dëgg-dëgg boo xoolee ajaratu daba sëy ci moom la génne dëgg la ni génne ci moom nga xam ne mu toll xolam yaatu lool salaam rek laa war xoolee dëgg-dëgg ku la woo kaay këral nga génn ci loolu mm-hmm. am lu ne di tukki fu ne loolu daal mm-hmm. dëgg-dëgg bu ko neexoon du la wane mm-hmm. ki la wane bëgg na la mbay dëgg alaaji sekka daal tey loo ci mënti dégg daal tey la yaram yëpp di daw tey waaye nag dëgg-dëgg ki nga dalal muy Mamadou Tunkara dëgg-dëgg alias ba du mën lépp théâtre ku la ko yombuloo moo la nax ko moo moo moo la ko jafeel dëgg-dëgg góor gu baax gu nuy wax alaaji Modou Diagne yàlla ko yàlla yërëm moom boobu mu ñëw ni ma cuq ma ni naam mu ni ma dëgg-dëgg théâtre quotidien du ko def. Mm-hmm. day nduru métier day nduru métier mu yomb te jafe. Mm-hmm. dëgg-dëgg yombul di. yombul de cet acteur bi nekk ci moom. Mm-hmm. buy joué nga xam ne daal dëgg-dëgg kii muy kii kii di xam ne li mu bëgg xam na ni mu koy defee mën na ko. dëgg daal dëgg-dëgg looloo loolu loolu te xale yi. laaj ba du mën lépp daal tey ba yow loo ci mënti dégg. tey daal tey daal sama xel dem na ci. Alaaji Baye Idi sama xel dem ci Golbert Diagne mhm. sama xel dem ci naanaan yu mag yooyu le mhm. te daal te daal yaram yëpp daw na wax tey dafa mel ni meew mi la léegi la léegi la comédie bëri rek ku ne di mhm. comédie daal dëgg-dëgg li mu def ci comédie di ko def ci lépp jéggi na dayo mbay jërëjëf jërëjëf alors bala maa ñëw nuyu Dani Dani mu toom maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bu baax a baax dama doon bàyyi nga dal waaw. Euh, kurus gi daal ni kurus gi kurus gaa ngi ci baat gi fàtte nga ko ci wala sa istil la. waaw hmm? waaw baal ma kii ko. Hmm? nit yàlla nit yàlla. Euh, dugal ci poos bi rek ma tegal tegal nii tegal ci déedéet tegal nii rek. voilà tegal noonu rek waaw kay maa julli <laughs> ko fàtte koo bi tey maa ngi lay ziar. Mm-hmm. ginnaaw ma sant yàlla julli ci yent bi sant sama ñaari waajur. Mm-hmm. dama naan jërëjëf Serigne tubaa jaara maam Cheikh Ibra Fall. Mm-hmm. Euh, Serigne Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te maa ngi ziar waa àdduna yëpp. di mm-hmm. ziar waa Sénégal yëpp di ziar particulièrement waa Touba gi ma jóge mm-hmm. ndax peccum liir bu neexee nday ja jàpp ci mbagg bi tey maa ngi ziar sama yaay booy maire puy di ko ñaanal mm-hmm. gudd fan ak wér gu yaram ak suñu waa kër yëpp sama yaay mooy sama sëriñ mooy sama xarit euh, maa ngi ziar tamit sama goro mu xam ne day topp Walfadjri mooy nday faatu luum sama goro la day topp Walfadjri lu bëri ak Pape Ndiaye ci cité Fadia di nuyu tamit sama ménagère sama sama ñaareel mooy awa si soxo tamit mm. lu ma nekk ma nga ci moom tamit di nuyu nag yéen ñii bi tey ak sama papa ji di ba du lépp mm-hmm. di nuyu Moustapha Thiam ñëw xit sama xarit sama doomu ndey mm-hmm. di nuyu cuq peex ak euh, suñu soppee Seka mm-hmm. moom it xam ne yàqul dara ci aar comme ni ko suñu papa waxee euh, euh, bi tey damay nuyu sama maman ju baax moom tamit ju nekk fële ci États-Unis maman Ndeye Sall. borom waaw ah, borom seen seen use. Mhm. moom ku baax la moom tamit. Eh, damay daggal nuyoo bi foofu ba ci kanam ban yaatal. Mhm. ma joxaat ma kàddu ma gën a ma gën kii. Mhm. mais kontaan naa trop ci invitation bi Walfadjri ndax fii sama kër la. dëgg la te it eh, fu ma fu ma fu ma fu ma kontaan di fi ñëw la. te ngeen bàyyi xel ne àdduna yëpp a ngi leen topp nag léegi. vraiment Walfadjri moom macha allah. kontaan naa ci teew bi ah, trop kon looloo tax ñu ñuy toppandoo yeneen kii waaw xam nga Sénégal. Mhm. Sénégal Sénégal du créer day day day day day day day roy. Mhm. waaw du créer dara. Mhm. du inventé day copier. mi mais ca kaw ca kanam ci lu baax. incha allah waaye nag loolu itam lu baax la parce que di def dara ba nit ñi di la roy loolu itam sant yàlla la. dëgg la di def kenn roy la mooy la ngay def baaxoo. dëgg loolu am solo la. ayca euh, peex euh, dëggal ma naan peex sax euh, Pape Aj Mansour Euh, ñu ngi woon ci Secka bëgg nañ nag nga ñëw wax ñu Secka wax ñu jaar-jaaru Secka. day saal ñu ngi nuyuwaat ñëpp di sant ñëpp. Mhm. waaye sama xol dafa tooy. waaw du ma du ma jooy tey. Mhm. Mhm. ma dellal. waaw waaye sama xol sori na. waaye nag maa ngi ñëw ci moom. kan la ñu dalal <laughs> ndeysaan sa dëgg dëgg nag. waaye Secka. dalal na xale boo xam. ndeysaan sa dëgg dëgg nag fi may tàmbale. <laughs> xam nga taasu lay def. Mhm. waaye nag li ma gën a neex ci moom. Mhm. day saxam dëgg-dëgg. mooy buy taasu sa dëgg-dëgg da ngay xam ne góoroy taasu. Mhm. yi taasu naan nii naan nii di nooyal ak laxal. lala ñuy bëgg ñu naan palax bu la ñu taasu day dëgër. taasu day dëgër. waaw ci lapp lappax. ala taasoo bën làmmiñ ana taasoo rocc tuñ. waaye ana taasoo xeesal. ñun ñu foog toog. monsieur Mbadou moo tax Sega ñëw na leen ndeysaan <laughs> sa dëgg-dëgg. li nga xam ne mooy taasu. ndeysaan sa dëgg-dëgg war naa mën a góore kii moo ko góoree. daa war a góore. waaw <laughs> moo ko góoree. dëgg la dëgg la mbay. ndeysaan sa dëgg-dëgg nag <laughs> waay waay sama xel dem na ci vers 1989. xamoon nga lu xew. lan moo xew 89. yow lañ koy laaj peex lan moo xew xamoo ko déedéet. émission bëri na ci a déedéet événement naar yi. événement naar yi. jërëjëf ndeysaan <laughs> événement ak di xeex. Mhm. ñii di mataat. ñii di wéq. coow lu lool. metti mbay. metti lool ndeysaan sa dëgg-dëgg nag naar yëpp ñibbi. Mhm. bi naari ñibbee <laughs> ndeysaan sa dëgg-dëgg xam nga bu njëkkaan ndeysaan sa dëgg-dëgg naari ñoo yoroon boutique yi. Mhm. naari ñoo yoroon. débiteur yi. dëkk bi wéet lool. ñu daan jaay te ku xam dëgg-dëgg nag xam ko ndaw. bi ñu toogee jaaxle ma ànd ak sama délégation. dem ba gànnaar ndey <laughs> sax sa dëgg ne leen naxari oh waaye jël si leen naxari ne ñoo bañ. ñoo lànk. ndeysaan président defal délégation ne naar jël si leen ci réew mi. naar ne ñoo bañ. Alaaji Abdou Diouf. dëgg la Alaaji Abdou Diouf ne sax sa dëgg dëgg la le gardien de la constitution. dëgg la moom laa ku ne dem naxari bañ de xam nga kan mooy ni naar hmm. hmm? xam nga lu la nit de hmm. Sénégal dafa xëy rek ne ya bay ya bay ya bay naa sax xamul woon lu xew ñu daal dañoo jëg gis ay naar yu lëmbale Mauritanie di ñëw dëgg la ñu lii lu mu baax nday saat sa dëkk tëgg ma ni waa ñu naan naaree de lëmbal lan la rek mu ñëw ni lëmbal lëmbal lëmbal naar. lëmbal naar boobu moo jubal Sénégal day sant sa diggaag Mauritanie. non loolu jar na tàkk non loolu jar na tàkk. fekk na loolu waay. macha allah day sant sa dëgg-dëgg nag. Mhm. dibitër yi bi waat. ndeysaan nit ñi lëmbalaat. ndeysaan di jaay ndaal. ndeysaan ci yi bi di jaay ndax lëmbal naar. Mm. Seka mi woo ko fii. allahu akbar Seka kon yooyu jaajëf ñu ngi lay jaajëf. ndeysaan waaye bi mu pare. Mhm. pëli na ko meer de waa comme naari tudd nga leen mais sax dëgg ñun pël yi dañoo bëgg suñu lëmbal hmm. waaye seconde na amul problème lëmbalu pël waaw pël yi lëmbal naar yi lëmbal waaye séeréer yi neen dañoo bëgg a lëmbal xam naa na ko <laughs> kon séeréer yi yóbbante nañ la ak saraxule waaw ñëpp bëgg a lëmbal sa lëmbal bu mu yam ci naar ak pël te xam naa dina génne yu bees saraxule day métti trop may ma yam foofu wala ma dem demal demal day sax sa dëgg-dëgg damay jaaw de ñu nu ko faxaye mu ni déedéet mu ni apprenti fëggal caaro yi looy wàcc. Hmm. moo ko waay. Hmm. xam nga lu ko waral. caaro yi waay waay xale bu garaawaan bi. ak yimi. def fa pro dem fa programme. Hmm. Seka di way. bi muy way programme bi ca ca ca ca ca Colobane. ndeysaan agresseur yaa ngi koy xool juróomi agresseur. day mbay. ñu koy may rek ndeysaan sa dëgg-dëgg mais may rek mais ñu ngi leen di mu ndeysaan sa dëgg-dëgg mu mu dugg ci njaga njaay bi sëri xool <laughs> mun leen taggatee sa kër xam nga ba mu dee këj kanam bi doo ko ñor déedéet eh, xam dëgg la fa arñi a muus mu jékki-jékki rek ndeysaan ñàngal daal ni apprenti fëggal caaroy laay wane ni bandi la xam nga boobu footo bi toll da leen wane ne bandi la bandi la te xam nga footo bi toll footo bi toll mi ngi kos ba Cambérène waaye <laughs> nappe nday saan sa dëgg-dëgg nag waaye ñu ne ko saka loolu doy na wala wala ma yam foofu wala ma def demal demal ñu ne ko ñu ne ko faga yam nday sa dëgg dëgg mu way nag Seydi Boubacar sama xarit Aboubacar boo boo xaree xolam bii ndeysaan sa dëgg-dëgg waaye Serigne Babacar si nekk fay. bu tërëf dara man. lool si maa ngi dem ci jawaar. ndeysaan sa dëgg te kafu ci ñu ne ko fa nga yem mu ni déedéet <laughs> ndeysaan mu indi ni ma way ko ci pël kii ko way dëgg la mbay ñu ne ko fa nga yem mu ni jigéen li lan la du ngeen rage jigéen dafa war a sañse mais bu sañse dafa war a belli mu indi belli ndeysaan tey bay boo xoolee xale bu jigéen ndeysaan sa dëgg-dëgg def sa sinam ne xoolal ni ma bellee c'est grâce à Sega ñu ne ko fa mu ni déedéet <laughs> waaw mu ni réew mënoo mënut a développé. Mm-hmm. mënut a dem. Mm-hmm. te jigéen ñi bokkuñu ci. déedéet jigéen ñi. Mm-hmm. macha nekk mbay ñu ne ko fa nga yam waaw <laughs> waaye kaay ma wax la benn affaire. waaw est-ce que xam nga ni ki ki ki gën a duyoo ak ndaaraam réew mi ngi di toog. diw nag ñëpp ku bëggoon façon neex. jàll kii ngay duyoo. ngay woo ndeysaan sa dëkk tey ma wax la Secka ñan la duyoon. ndeysaan ki mu njëkk a te moo ko wane. muy ajab gaba a gaba sëy waaw mu mu mu alaaji Mor Maane nga xam ne mm-hmm. dañoo bëggante ba ci kaw asamaan mm-hmm. moom mii moo ko génn mm-hmm. ñu ne ko Sega koo duyal mu duyal Abdou Guité Seck way ci bés bi xale bu ne way ñu ne ko Sega fa nga yem mu ni déedéet duyoo ak Pape Diouf way ko Sega fa nga yem mu ne sans sa dëgg-dëgg da mu ni du ma yem ci mbalax bi rapport bi ñëw mu ne ko kaay ñu ànd muy fataar ñu ne ko yaa Fata lan ngay def mu ne fans yi. ñu ne ko Seka fa nga yam déedéet mu duyoo ak Mapenda Seck. ndeysaan lay soxal sa dëgg-dëgg ñu ne ko loolu doy na mu ni déedéet Wally Seck mi. Mm-hmm. bi muy doog a génn jub digin bay kii bokk de kii ko buux. Mm-hmm. xam nga lu mu duyoo ak moom. Mm-hmm. nday soxal sa dëgg-dëgg nag bu ñu nekkee xale. yaa ngi fàttali son boobu moom ñoo ca ànd. Mm-hmm. ñu nekkee xale dinañ naan fooyee. ñu ko sagaa fa nga yem mu jiwaat Yves Niang. Mm-hmm. wooy ca Awa Ndiaye. moom nga doon wax sànq. Mm-hmm. ñu nga yem mi ngi jubbi. sagaa mi mi mi ngi ci sa dëgg na fa nga yem. El Hadj taxaw foofu ma taxaw demal. doo taxawul foofu. taxaw naa demal demal taxaw naa waaye dafa mel ni am na waaw taxaw yor di muuñ bi loo yor di muñ waaw maa ngi ñëw. <laughs> alaaj xale bi li ma ko xamal. dara ma xamal. wax leen ndax damaa nekk ci péage da ngeen maa arrêté. benn la rek da nga ko arrêté ci péage bi. ayca mu def ma def ñu ne ko Seka kañ la duyoo. ndeysaan mu duyoo ak daam seen ñu ne ko lan ngeen def mu ne lambar lambar moom daam mhm. seen. ñu ne ko Seka fa nga yem mu duyoo ak maam Balla. Mhm. ndeysaan mooy way wuree wañ wayu ndey gay. Mhm. maam Balla anamu. kay kay kay baax. boo paree nga woo ko téléphone ba ñu ne ko sagaa fa lay yam san <laughs> sa dëgg-dëgg nag waaye <laughs> waaye mu duyóob ndaanaan bu mag kër ma yegg loolu bàyyi ngeen demal pare ñu ree ba pare <laughs> ree leen nga ne bu paree woo ko téléphone woo ko téléphone ndax bàyyi laaj maasu mu toog saawa nga xam ne rarement lay dem programme nga naan ma anam maam Balla ma woon vacance yaa ma dugal boo paree woo ko baax boo paree woo ko baax baax ma xam ne dugal da nga xam da nga xam xale yi rek. wallaay ndey saam waaye mag ñi laa gën a miin. <laughs> Ah, yow a xam xale yi.